Ehm, maa ngi tudd docteur Maguette John. tey ma am mbégte bu rëy ñëw fii ci centre de santé Kër Maam El Hadj teewe fii journée bi ñuy jagleel dépistage cancer du col de l'utérus mu nekk ci euh, cadre activité octobre rose bi et alors euh, wér-gi-yaram yëfu njaboot la bien vrai que cancer du col jigéen lay affecté waaye jigéen mooy société jigen moy suñu yaay moy suñu jabar moy suñu sœur kon goor ñepp maa ngi ci euh, euh, occasionné wu di len lancer message fort que ñi accompagner jigen ñi ci sensibilisation di len gungé aussi au niveau des centres de santé des structures de santé bu ñuy def sen dépistage wala beneen activité bo xamanteni ni ñu ngi koy wara am donc mbir mi du yëfu jigen rek ñun ñepp ñoo ci wara and kenn ku nekk am nga message bo wara mëna véhiculer euh, de passage ma ci remercier bàjjenu gox yi ak euh, personnel au centre de santé bi yëpp parce que vraiment mobilisation bi amna waye message bi yobou nañ ko au niveau des foyers donc ñëpp ñi nga xamanteni ñew nañu fi tay tew bu ñu ñibé dinañu gëna xam naka la cancer bi di doxé ak lan ak lan moy conséquences yi ba kenn ku nekk di nga téla dem yóbbu sa doom ñi vacciné ko. wa xana di rebondir rek di len wax ne len vaccin lu bax la pour ar. def nañ ko fi ci ay feebar yu baree baree bari bi ñu demee ci vaccination ay at ci ginnaaw ñi gis ne feebar yooyu jeex na ci adduna bi kon ñi di leen waxaat ci di leen sensibiliser nañu bàyyi femmes yi ñu yóbbu xale yi ñu ñàq leen rawatina si jàngoro yu mel ni cancer du col de nga xamante ni c'est un tueur silencieux li muy faat ak li muy indi ci ay jafe-jafe ci jigéen ñi kenn xamul nu mu toll donc ma leen di ñaax ñoom ñëpp góor ñi nañu ñi ba pare ñi Eh, ñàqu ji ñàq seen ay doom waa cause yi eh, bari na waaye bokk nañ ci li nga xamante ni moom la ñuy wax benn virus moom mooy causé cancer bi donc virus boobu nag lu ci ëpp jigéen ñi nga xamante ni sëy nañu ba pare ñoom lay dal donc moo tax ñi nga gis ñu ngi accès communication bi ak activités yi ci femmes yi nga xamante ni sëy nañ ba pare ndax ñi nga xamante ni sëyaguñu test bi gu mënaguñ leen koo defal xam naa da ngeen a fekkewul woon sànq causerie bi waaye sage-femme bi dugg na ci biir dugg na ci biir dugg yu xóot a wax leen appareil bi ñuy jël defal ko nit ki bu ñuy testé loolu ku sëy ba pare rek lañ ko mën a defal. waa ñi sëyagul ñi sëyagul dañ leen di vacciner vaccin bi lañuy la ñuy jël mais duñ leen defal dépistage bi. sant yàlla parce que man partenaire la invité d'honneur waaye li fi gis si. ay nit ci mobilisation xalaatuma woon dinaa fi fekk lu toll noonu donc ñu ngi remercier jigéenu gox bi yépp zone nord fu nekk jigéen jóge na fa ngir ñëw def si dépistage bi satisfaction à 100 pour cent lañ ci am vraiment mobilisation bu gis ngeen ko ñi nekk suñu ginnaaw ak ñi nekk ci biir saal yi contentement bu rëy lañ ci am. nuyoo bi di ko commencé ci turu imam di nuyu délégué délégué de quartier bi nekk fii nuyu aussi bépp acteur communautaire bu nekk fii acteur religieux bu mënti doon maa na nuyu maa ngi jox sa wàccuwaay ci bés bi maa ngi nuyu aussi madame Diawara ci bés bi dèjà mën nañoo wax ni am nañ réussite totale ci événement bi parce que lii rek dèjà yomb woote ñëpp ñëw yombul depuis le mois d'octobre ñu ngi sur le terrain di def ay activités de dépistage cancer du sein aussi di ci yóbbaale dépistage cancer du code de tourisme c'est pas la première fois ñu ñëw fii ñun waa Marisop en partenariat avec madame Diawara pour appuyer ko ci lépp li nga xam daf koy soxla tey beneen édition la ya. mais édition bu spéciale di wax ci Marisop mu nekk benn structure boo xam ne day yëngalu ci lépp li nga xam ne dafa jëm ci wàllu centre de la reproduction day jàppale lépp li nga xam ne dafa jëm ci wàllu jigéen loolu mooy liggéeyam surtout ci côté de la planification familiale mais weer bi bu nga xoolee dafa nekk weer spécial ñu tuddee ko octobre rose nga xam ni dañuy gën a ñëwal di def li ñuy wax dépistage cancer du sein aussi di defaale aussi dépistage cancer du col de l'utérus mais bu ngeen seetloo sunu yaay yi sunu tante yi sunu sëy yi ñoo fi ëpp mais aussi waroon nañoo gën a mën a yokk sensibilisation yi surtout ci côté jeunes parce que ñun dañoo nekkaale tamit ci côté canal jeune parce que pratiquement jeunes yi ñoom ñooy ëpp dans la plupart yi gën a souffrir ci côté infection yi bëri na moo tax bëri am na activité yu bëri des activités quotidiennes yi nga bëri yu bëri yoo xam ne jeunes dañ koy def seen seen dëkkuwaay sol seen solin seen doxalin te da leen jox ay infection te dañuy am ay jafe-jafe pour jege structure de yi parce que léegi dafa am loo xam dañ ko seetlu surtout ci poste wala ci structure sanitaire yi yi dañuy ragal di fréquenter structure sanitaire yi parce que dafa am lu ñuy wax effet stigmatisation dafa bëri ci côté jeune da ngay gis sa benn sœur wala benn jeune bu ne ci kër yi mu traîner ak ay infection ci boppam mais am na ci kersa waxtaan ceeg yaayam wala waxtaan ceeg mag bu jigéen aussi am na kersa dem ci poste de santé bi di xool sage-femme bi wala gynéco parce que day bañ jëm am ko ko fa gis wala ku dëkk ci koñ bi naan xale yi kat dama leen a gis ci sage-femme wala ci docteur yi xale yi lan la ñuy def ci sage-femme yi te pourtant dañoo war di xool seen bopp jigéen jigéen moo koy consulter sage-femme infirmier mu xool la bëri na dañuy am ay jafe-jafe mais dañuy am moo tax yaay booy laay gën a sonn sœurs yi ak papa yi aussi ñuy gën a di sensibiliser seen doom muy bañ a am yenn sujet tabou yi ci côté sa de la reproduction warul mën a am lu tabou looloo waral dangay gis xale bu jigéen bu nekk ci biir kër yi traîné ak ay infection yoo xam ne dangay dem ba da koy jural jafe-jafe ëllëg. loolu seetloo gis ngeen cancer bi dafa ne cancer yoo xam ne mën nañ ko faj bu àgg ko jéene état. dans la plupart ñëw dañ lay dépisté parce que da nga am cancer déedéet dañ lay saytu sa yaram bu yow nga ànd ak mu dal ba nga xam ne yow amoo benn jafe-jafe sa yaram su ñoom dañ ko ci xool ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoo lay defal traitement yi. bi tey bi vraiment mën nañu wax alhamdulilah rabil alamin parce que si bi buñ doon xaar presque ñëw nañu ba dépassé ba ñu ngi si ay presque plus de deux cent dix euh, euh, dépistés. et eh, toujours a inscription comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ñëw di inscrire loolu mooy wane ni santé population de seen santé ñor na la un cancer du sein et cancer du col de l'utérus donc dañuy wax alhamdulilah rabil alamin que ñu toll fi et cas yi ñuy am bu ñaanuñu yàlla am ay cas positif mais si toutefois am na du ñàkk euh, prise en charge bi day day gratuit parce que avec l'association des sages-femmes de Thiès nga xam ni ajaratu mu ni na wàdd moo ñu jiite ñu ngi liggéey si hôpital régional ku ñu am dañ koy yóbbu foofu pour suivi continuité bi incha allah. lan jigéenu Kër Maam El Hadj ak jigéenu zone nord yëpp parce que Kër Maam El Hadj c'est un centre de santé qui couvre tous les centres de santé les postes de santé de zone nord et am nañu ay consultations à tout à travers tous les quartiers de Thiès kon population bi laay dénk te am na ñoo xam ne sax dañuy jógee yeneen dëkk di ñëw euh, ni fagaru moo gën faju waaw seen yaram surtout si côté mbirum maternité war nañu di ñëw tout le temps même une fois deux fois par deux euh, chaque mois di ñëw di saytu seen yaram bu ñu xaar dara dal leen ñu am ay signes ñuy ñëw mais chaque fois dañuy ñëw di xool seen yaram comme nu ko nuñ ko waxee léegi si si panel bi euh, waroo xaar dara ñëw la nga nga jot la nga ñëw nga ñëw xool ko docteur mais chaque fois da nga war ni nga waree am conseiller juridique noonu nga waree am conseiller santé